نون والقلم وما يسترون mbokki jullit yi rawatina yéen ndongo daara yi ak mbooleem ñi mokkal alxuraan te mën koo bind mbind mu rafet te wér te doo ko geestu C3S compagnie Serigne Seck Sénégal gannaaw jéego yi nga xamante ne bii at mu jot dana ko def ngir yaatal mbindum alxuraan ci anam yu wér te rafet ñooy am mbégte ci di leen yëgal jogante bi ñu baaxoo amal at mu jot muy mbindum alxuraan bi ñuy amal ku ci bëgg a bokk mën ngaa yónnee sa demande ci xët wooy bind mu toll ci fukki bind ak ñett def ci sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko ci 16 rabita bi lëkkale mbooleem jàngalekati alxuraan ci biir biir réewum Sénégal te gën laa jege wala siège fédération bi lëkkalee école coranique yi bu la ci gën a jege wala mboolee magasin c 3 si yi nekkee ci biir réewum Sénégal bu la ci gën a jege dépôt candidature yi nag ñoo ngi koy door benn fan ci weeru mars ba ñaar fukki fan ci weeru mars muy deuxième édition concours mbindum alxuraan c 3 mu am nag lu am solo lu ci tukkee muy première ak deuxième bi nga xamante ne bii ñoo génnoon daaw jamono ji ñoo leen di bindloo jusu xam ba suuf ak tabaaraka ba xam bu ci lekk ñu war koo def junniy exemplaire fas ko yéene séddale daara yi ngir liggéeyale ko alxuraan. woote leen ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. compagnie Serigne Seck Sénégal li ko tax a jóg di soññ ak ñaax mbokki jullit yi ci mbind mu rafet te wér moo leen di ñaanal tawféex ak taysiir maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun